ngir vous mëna mën ay vidéo chaîne YouTube bu Caaroy info TV nga daal di li nga cloche les notification وخلق سارا ومثلك الدنيا والغرا في السلام سيدنا محمد benn association la bi ñuy wax VSR VSR nag mi ngi signifie vision pour la solidarité et la réussite nekk ci association bi am nañ ci juróom-benni at ren moo nekkoon suñu cinquième édition conférence religieuse dañoo nekk ci quartier bi nag nekk ay ndaw nekk ay xale yoo xamante ne ay xale yu lañ yu ay xale yoo xamante ni dara. ñoru leen lu dul seen quartier. waaw ñun nag comme comme na tur bi wuyoo rek vision pour la solidarité et la réussite. moo tax lu ñu mën a def ba suñu gox jëm kanam dinañ def le tout pour def ko lii tamit ça fait partie comme lii dina tax éducation yi gën a baax. waaw conférence bi comme nu ñu ko gisee bii mooy cinquième édition bi organisé normalement sax septième la waroon doon mais vu la situation bi fa amoon ak Covid bi deux dernières années yi defuñu ko don bii mooy nekk cinquième édition bi ñuy def. di ci and ak suñu membre yépp ak suñu famille suñu quartier yépp daal waaw thème bi nag euh, ñi ngi koy jublu ci ki nga xamante ni moom moo di gën gëmi def Seydina Mohamed ki nga xamante ni moom moo tax ñu sàkk ñu moom lañ dara te mooy doxalin moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam euh, ñun ñëpp dañ ci war a dañ ko war a mën a gëstu parce que dafa jar ñu xam ki tax ñu sàkk ñu da ngay gis parfois ci tante yi ñu ne Seydina Mohamed rek gars yi fi taxu extra te duñu xam kan la donc ñun suñu mëbët mooy nit ñi xam kan mooy Seydina Muhammad sallallahu waaw thème bi nag tax ñu taamu ko ku ne xam ne ni yonent bi moom mooy référence jullit yëpp. cette année ci ñu ne nañ ko jël comme thème pour xam si moom gën a xam ci moom ndax amaana xam si moom lépp sax yombul mais ñu gën a jàngaat ci moom gën a raayaat ci moom. soo ko mos a gis nii boo ñëwul ko tey wala boo koy tasa ko tey lu tax ba mel ni ku génne ci biir ak loola. moo gënoon a bon mu benn gënoon a bon jidda gënoon a bon pikin gën a bon quartier yëpp boobu ak ceddu pire moo fa nekk waaye mu dund ko moom set wicc ba nekk mag kenn dund ko baaraam kon quartier am na xale bu ko daan wax ci seen xale yi slogan bu ma neex la suñ quartier tilim na waaye buñ tilim xaw ma suñ quartier xaw ma la la waaye buñ nangam loolu am solo dafa am solo sax quartier ak nu mu mën a mel environnement ba yow doonal kii nga doon fexeel ba fu yonent bi teg tànkam teg fa tànkam day mujj kàtt bi day leer day mujj milieu bi day leer parce que nag al insaanu ibnu bi atihi nit doomu milieu la kon milieu boobu yaa ko war a déterminer ci sa mbaax mais yaa koy déterminer aussi ci sa fan kon yéen da ngay war a déterminer déterminer dëkk bi gox bi milieu ci mbaax mbaax bi fu nga jëlee موجي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كون لول لين لا تي جوند يونتي بلا ديكوي يوني بنين بي موي ني واخ تي ديمو دين داو نك طفولة تام اك بي مي ماك بي مي نك داو نك كوماسي ماك لين دي نتري تام موي رسول الله صلى الله عليه وسلم خام نك فيري نك واجو ني بري كو نكاي واجو بني bàyyi ko déedéet yonent bi ku teel a ñàkk wayjur la surtout wayjur bu góor waajuram bu góor na fekk yaayam ni ko ëmb kon xamu papa kon yow mi nekk papa te sa amaan xam nga ko war a wàññi ci sa dund warut a war nga fexe ba am jom réussir comme yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kan lan mooy Muhammad Muhammad mooy koo xam ne gërëm nañ ko ci suuf gërëm ko ci asamaan gërëm ko àllaaxira kooku mooy Muhammad waa suuf gërëm nañ ko waa asamaan gërëm ko buñ demee waa àllaaxira gërëm ko incha allah loolu mooy Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam kon Muhammad Ahmed Hamid Mahmoud mooy tur bi yonent sallallahu alayhi bëgg naa la ko mu tudde doom waaye ba mu tudde doom yàlla ko nee na jaaxal na ma lool it nag ñu jur di jur ba càpp bari ay góor lool te Mouhamed amut kon ana joxe bi ngay war sama diggante ñëw jur Mouhamed jërë ngeen jëf loolu koy faj gis nga loolu islam yi li def comme campagne ne dañuy jéem a jabuli sa yonent bi dañ koy caricaturé dañuy nangam nangam xool bu la ci boole soo ku judd na tudd Mouhamed bërki ne mooy jaay bi ñu mujjee def benn natt ci recensé adduna bi ñoom ñoo ko génne ñoom tubaab yi ne nañ ki ëpp turandoo ci adduna bi mooy Seydina Mouhamed dafay gën moo tax moo gën moo ëpp turandoo ci adduna wallaay lasi lay lay la waaw kàddu gi mujj mooy remercier membre VCR yëpp parce que c'est pas évident nga jiite ay nit ñoo xam ne ëppoo leen xam-xam daa koo leen jàng di sant di population Mousdalifa yëpp donc fi ñuy tëjee kàddu gi mooy sant ñëpp rek gërëm ñëpp daal sama mbokku jeunes comme ñu gën a defaraat jikko yi comportement yi parce que ñun ñooy avenir demain damay remercier surtout sama waa association. waaw kàddu gu kàddu gu mujj gi mooy dañuy santaat yàlla rek di waat ñëpp ci weeru koor wi sëru ramadan bi di ci baalu àq ñëpp di ci baal ñëpp àq tamit aussi. وأكبر وراء سيدنا محمد خلقا وخلقا سارا ومثل قتل يا والمراس سيدنا محمد من نوره كل نور ساتعا بسنا نور النجوم ونور الشمس والقمر سيدنا محمد وجهه مدور وهو خميس ازهر وهو بعير أسمر مرتل التكلم سيدنا محمد كأنما الذهب في خده المهذب وكان سبت الحسب قرني نور ثمن سيدنا محمد كان الأذن الأدعج وأسلب المثلب وأسكن المطيب ولد ما يخمر سيدنا محمد وهو أكمل خلقا وخلقا سيرا والمسبقة لم يرى ولا السلام سيدنا محمد أحمدنا حامدنا نعمتنا محمودنا فرحتنا والجود مسجد سيدنا محمد من نوره كل نور ساتعا بسنا نور النجوم ونور الشمس والقمر سيدنا محمد وهو الحبيب الذي من أجله خلقت خلائق الله. Non, mun nañ ni 100 mais au moins am nañ le minimum xam nga parce que jon nañ séntu mu gën a yaatu gën a rëy comme année yi passé mais comme association dafa toog deux ans yoo xam ne deful benn activité Covid bi tënkoon leen donc tey mu def retour am bon on s'attendait à ce que mu gën a mu gën a mu gën a yaatu. waaw macha allah sant nañ yàlla bu baax a baax parce que édition bi chaque année rek dañ ciy gis évaluation dañ ciy gis yokkute. ci première année bi ba ci cinquième année bi chaque année rek saa bu ñu woowee waa quartier bi dañuy génn. waaw macha allah moom mhm, comme niñ ko doon defee rek euh, objectif bi moom c'est atteint kontaan nañ trop alhamdulilah. ngir gën a mën a jot ay vidéo xibaar abonneel ci chaîne YouTube bu Caaroy info TV nga daal di bës li nga xam ne moo di cloche bi ngir mën a jot yooyu les notifications.